thank you to wolma ñanna konti la ñanta ka konti le feŋo feŋ be ga america banko kan biriŋ april kar folo wol bee ñanta ka konti le hani duntaŋo meŋ naata lunta yala niŋ deenaanoo meŋ wuta i bee le ñanta ka konti ala kata ali ye konti ali naŋ la dimbaya mo be ye konti Welcome to Gambian Talents Promotion. the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GCP. We tap, nurture, and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gathering, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brochures, flyers, t-shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. Our team of professional and dynamic young people are ever ready to serve your business needs. We are the first Gambian non-profit online public broadcasting network with over 300,000 active followers across all social media. At GTP, we build people. If you want to learn how to become a journalist, videographer, or media personnel for free of charge, contact GTP on 750 3654 750 3654 or 794 9214 794 14-404-593-6215 or email us at gambiantalents at gmail.com. GCP, the people's power. Power. Power. supersonic money transfer wolle kudima na ye ni banna salonga nyati men na terol nin kanintelu ni be kodo kile nan ka bonan europe usa canada wala switzerland hani transo ita jolaje yeah! kaatu ko a tariyata a lanno warta ɗum fana hani bata da kilinteje ni pareta pour que ko ɗo kinan ñin banna salo ga ñatili menna nko terol nin kanintelu sayin ite mirala koteke ni pareta ko koɗo kinan ka bona europe usa canada wala hani fo switzerland ñatili ñin banna salo menna altan no google play store wala na apple store bi alen na ñin supersonic money transfer app download al se munafanno ñin timliti la ni pareta pour que koɗo kinan gambia banko ko kanjak anin supersonic strong ibe nyin jela wolto nko alfintinan aliyalla fengo ya anin supersonic na banna salo diata ah li ngeen bu xam ci man eh. kay eh. investir de euh, noo tudda. maa ngi tudd euh, maaleykum salaam maa ngi tudd El Hadj Modou waaye ñu ma gën a xam ci biiri biiri. Um, oncle biiri tey nag ñu ñëw seet si la fii ci sa kër um, ñu war a am waxtaan bu mag ak yow um, si biir waxtaan bi ñu la laajte rek nga wax ñu yow yaay kan. Ah, Mm, kontaan naa trop di leen gërëm yéen mi toog ba xalaat ne da ngeen war a ñëw ci man pour laaj ma man maay kan li ma la ko dooree mooy maa ngi tudda alaaji Muudu Njaay ñu gën maa xamee ci biiri biiri biiri biiri bi nag suma benn sëriñ ku daan jàngal alxuraan moo ma tuddee biiri biiri bii suma yaay ndem ci yalla si mu ngi tuda aji seyna bu mbóoj suma papa Modou Ndiaye lañ ko tudé won waye Modou Ndiaye la tuda momi dafa rir waye ñëpp a ko xamé won Nduus Ndiaye waaw mom ak seyna bu ñoo ma ma six Pasiberan street ban bés ak ñaata waaw ma ngi juddu maa ngi am si suma birthday sax on the 30th of March. happy uh, hmm. laa juddu. 30 hmm. March. si hmm. ah, li ngeen bugg a ci man yëpp. foo dañ koo def dog. dog parce que. Mhm. kon onkul Biri ma laajte la fan la onkul Biri jange. ma ngi jange school buñ daan wa Albion school. Mhm. ma joge Albion school dem Stanley primary school. joge Stanley primary school. def school. ba pare ñu ci ñoo dem Crab Island fala laa suma school carrière. all right Oncle Biri ñu xamee la si biir football koo ne biiri biiri rek xam na yow yaay kan. Mhm. lu taxoon lan moo la ñaaxoon ku nga dugg si football bi. xam nga jamono jooju Banjul fii soo jàng school sa foo nga ñeme sports. Mhm. because uh, not only football waaye ñu bari loolu lañ ma xamee waaye dama daan football bi ma nekkee marine department naaw ports. jamono jooju dama daan cricketal mareñ dama daan daw football bi nag euh, moom bi ma nekkee xale ci moom laa ko doore because suma nijaay dégg naa suma papa daf daan football ñu tuddee woon ko seen sentamaan noonu la ko gaa yi xamee woon ci seen jamono yàlla di def nag ñëw ñëw ba yëfi ñëw fool ci man waaye yàlla def suma famille yi ñëpp da euh, daal ñoom ñaar la o ñetti nit ci ci góor ñi ñoo football waaye ñi ci des yëpp dañ daan football ñu de ci loolu lañ nekka ba ah, yàlla indi lim indi mooy ba ma dem football bitim réew waaye nag euh, bi foo ma football bitim réew am na place yu ma daan football footballal naa semleri school bi ma fa joge ma dem play Crab Island Bima joge Crab Island nak, jamono joju la ma gaigis. yi gis yobuma ma bala ma jehal Crab Island ci la ma ben pa bu ñu oye pa Ibu Konte Mo ñu réer na ni ma ko mëna a euh, pour nit ñi xam pa Ibu Konte moy Boy Konte té nek ak Trust Bank papaam di Kéba Konté ndem ndem si na leen yàlla yërëm moom magaam muy Pa Ibu Konté mooy Papi Badu Konté moom moom a gis 22 euh, July waaye booba time mu ngi tuddee Makati Square wata mm-hmm. euh, ñu waa Pacific Central ñu yëpp fa lañ daan play ji dee bi maa gis ba si samedi la ma ko faate ba ñu ngi play diggante Perseverance ak Primate uh-huh. si suba soosu ñu ngi play euh, Makati Square naa 22 July paa bi toog di xool di xool di xool ak gis naa ni ma defee ni ma muufee yëpp paa bi daal ni waaw kii xale bi xaw ma ban xale la waaye euh, yaagut mu mel ni ku dem te woot smart si bi mu jógee marché mu ñëwaat fekk ñu bentee ñu ngee play mu taxawaat <laughs> di seet di seet di seet di seet ba yaagul mu ooma ne ma booy ma ne ko mu ne ma kaay soo kon taxaw na concentré because suma elder brother see yonga ñu taxaw gars yi oo ñoom ñoom itam ñu ñëw di déglu pay bu ne ma boy naka nga tudd ma ko alaaji la tuda alaji muudu way ñu ma oye biri mu ma biri ma ko ma foo ka ma ko pasiberan laa dika mu ma kuy sa ba ma ko panguus njaay mooy suma papa mu ma ay ko la jur ma ko wa mooy suma papa mu ne ma ndax bëgg football ci team yu magi yi ma ko he oh non man eh, dama tuuti pour dem ci team yu mag play why at the same time suma team bi yëpp support the idea ñëpp yuuxu ne waaw waaw waaw nañ dem nañ dem rek noonu lañ obé maa bi after boo xam ne ñun ñu ngi luus tuwa mhm. waaw te yaakaar bi man la woon pour ñu ibolaay sa yooyu mhm. waaye gars yi convince ma rek bro, broda si ñëpp support ma rek ñu dem mhm. biñ demee fekk nag pleel naa crab euh, seen mairis pleel naa leen pleel crab ay la ne yëpp Kraboyland la ma loolu fekka sax biñ demee primate tatin primate fala booy konte juddoo moo nekk Trust Bank léegi biñ demee fekka tiim bi door nañ di sol te Ibu egsee man ne xal ma manager bi ma ne dama indi booy bi pour ngeen dugal ko mu play coow li nekkul kii practice na ñun kii deful lii kii deful lalee yi ba nga ñëw rek indi ko ne nañ dugal coow li bari boobu seen papa ngee dunda papi ñoom pa Ibu Konte mu ngee dunda maam Ablaye maam Ablaye fi càmm léegi càmbaraaya daan tegee palanteer bu ndaw la dafa dangaa cross number thirteen dem di other side kër yee jubloo woon mu almost bi coow li bare maam Ablaye dox cross ñëw waaw maa ngi dégg coow li lu xew lu xew ci kër kër gi xale yu door xanaa pay bu mi ne fi indi bu xam ne kenn xamu ko léeg ñëw ne nañ ko dugal ci film bi mu ne leen ah waaye coow lee bari moo tax ma li ngeen a def mooy gannaaw Ibrahima mooy mag Ibrahima ay mag te lii la bugga ah. li nga am li ngeen def mooy bàyyi leen ko ngeen dugal xale bi soo leen dugalee xale bi te ngeen gis ne xale bi munul dara oo deful dara su ko defee bu leen ko dugalati ngeen bàyyi xale foofu lañ d'accord ñoo ñun ñëpp ñu dugal ma ci foos 11 bi ñu dem play bi fa bi euh, yàlla dimbali ma ma maa score góol si sax ñaari góol yëpp maa ko score ñu win tout one lañ win. Mhm. góor yëpp maa ko score. soo bi ma di ovee nag ñu war a jógee box ba stadium fala ba jumaaju es ji nekk King Fahad. fala mhm. nekk mhm. ñu jógee box ba stadium ñëw laaxa primate pour dem ca kër ga tatin primate fi ñu solo Pa Ibou ndeysaan yal na ko yàlla yëre Pa Ibou ngee fecca fecca yoo xam ne te mooy suñ papa la mooy mooy mag mm. euh, mu ngee fecca because kontaante bi mu am mooy ki indi ba gaa ko reject moom moos koo góol si muy bési samedi ca suba sa booba yaa ngi am euh, team si dañ daan am seconde division team biñ eh, biñ ma playé noonu ak second division team bi ci suba si first division bi first team bi play ñu égalaat ma ci first eleven bi biñ ma égalee so ñu decide euh, after woon dañ ma dugal dugal fii mu des benn euh, position mu doon left out man dem si àlla remi aleen ak euh, am na keneen ko dama fàtte turam ñun ñetta lañ égalandool waaye capitaine bi moom la ci jamono Black Star ki mu woon capitaine bi Max Ndiaye moom lañ jëloon as ci pour mu décide ban kan laa jël ci ñun ñetta Max ne man laa jël soo mu jël ma ma pléwaat pour Black Diamonds noonu laa continuer nag di following year ñu select ma ci national team bi waaye nag dew ma woon train naa ñoom because maa ñoom a bokka ligue bi train naa ñoom fii ba final sélection bi ñu ne man dama tuuti waruma dem daal man ne leen waaye mu ngeen maa yóbbuwaale rek ma dem seetaan yi parce que maa yéenay play ci ligue bi waaye gars yi ne ma non euh, afterwards euh, ma ma dem dee bi gars yi cross bu dem Dakar boobu la ñu ubbi stade Demba Diop. Mm-hmm. stade d'amitié la tuddoon. Mm-hmm. in 63. soo biñ defee loolu ma dem euh, ci diggante bi ma poroxlu ci moto yi gars yi nuba ma ci biir moto bi ma dem ba bañ romba ci lañ ma góor ak génne ne ma ah fi mu nekk li kenn du la mun a yóbbu noonu laa àndee tiim bi dem Dakar bi ma demee it ma seetaan Gambia France Gambia Oppo Volta naa bokki Gambia Gabon ma seetaan match si yooyu yëpp den uh, ba match bi jeexee tournament bi jeexee nag ñu war a ñibbi si de after bi uh, jeexalee ba ñibbi ba ñuy ñëw ma ne leen ma promise gars yi ne leen ñu ngee ñibbi waaye next selection bu nekk naa bokka ci force 18 bi ñoo pikk gars yi ñeena ñi ciipuma waaye boobu déterminé woon naa ne next election in Gambia foog ma bokk ci booba nag du woon Scorpion ne Gambia 11 lañ ko tuddee woon Gambia 11 Gambia 11 lañ ko tuddee woon waaye yàlla defit yàlla defit eh, du ñëwee ah mébét bi ma amoon yëpp mu successful. Yeah. so when you say football see Europe. suma football ci Europe. Euh, waaw waaye dëkk yi ma play euh, foo ma njëkk a wax Sierra Leone. because Black Star bu Sierra Leone dañ ma jëloon pour ma dem football leen foofu in ma de ma demoon foofu di play Black Star. ñaari team ñoo ma doon xëccoo. Hmm. Black Star bu Blackpool bu Sierra Leone. ak baro liberia way den ma xalaat ne sereyong la gambian si opi so ma design pour jël sereyong ma play blackpool black euh, blackpool bi ma after nak ma ñibi ci waat ma ñibbi si nak ma door di play 1970 ma dem trials england bobo matar sal len matar sal mo nekkoon cricket captain gambia national cricket team bi Matar Sarr moo ma jëlee fii ariñal ma pour ma dem Derby County ma demee Derby County itam booba ñoom Dave Makayang fa ñoom Achi Gamel ñoom Kevin Hector ñoom Roy McFarlane ñoom ñëpp a nga woon Derby ma dem bi ma demee it yàlla def jaamam ma eh, try daal be yaakaar ne dinañ ma bay fofu way den le Brian Croft mo don manager daabi 70 71 season mom moma ma moo playuma England way li kon don nek force african bu play in England that was in 70 71 season lu tax nangoo because mu don bañ ñu ne mo njëkkaa dugal Africa nit ku ñuul ci tiimam waaw so that was the reason so uh, at end ma decide daal pour ñëw back home then in 71 bi ma ñibbisee ma door di play pour Walidaan baby bi 1901 ñëwee fii benn Denis team right now nii seen national coach bi Denmark maa moom ñoo bokkoon benn team in Denmark moom iya bi uh, maa moom a gënandoor bi 1901 moom mu dem euh, Belgium man ma jóge fa dem euh, Spain 72 biñ ma jë biñ ñëwee fii placé ñun booba soo jógee Europe euh, flight police flight bi dafaa jógee midnight in Copenhagen Copenhagen su ko defee egsi fi early in the morning or ci suba biñ egsee ci airport bi la leen nit ñi door di wax ni hee yéen a ngi play euh, euh, walidaan biiri biireen fii nekka kool bi fu mu dem tourist market mu ngi nekkoon jos boori state house noonu so bi bi bi bi bi gars yi euh, practice ba pare dem nag tourist market ne ñu ngi uti luñ jëla souvenir taabul buñ taxaw rek suma tur la leen. ñi de di leen wax mu ne tubaab yi ne leen xaw ni euh, gars yi maire yi ne leen maire yee boos yi ne leen am ngeen liggéey de yéen a ngeen play against biiri biiri so coach bi ci boppam na mu woori who is this biiri biiri xam nga moom mu ne moom mu ngeen laaj boppam kanay kii waaye yet still li gars yi wax I make sure I'll see it on Sunday mu ne nag mu concentré ci ma bi ma biñ fu ba ñaari tiim ciy génn ñu génn ci euh, taxaw laay noom ñuy wante def yooyu yëpp ñu door mu ne benn muuf laa def rek mu oo gaa yi number nine bale mooy biir biir gaa yi ne ko waaw mu ne leen waaw li ma gis ci moom waaw nuru na ma li nit wax ci biir dëkk bi nuru na ma di waaye xaaral ma bàyyi ko den kooñi bi 19 novembre bi nag concentré ci team bi ci man la concentré put eye on me movement ci maa defa kera three goals laa leen score over ñu dem gisee Kaba Diallo moo doon président yi Walidaan ak Obi Konaté fi score mm-hmm. ñoom ñu dem gisee euh, soo gars yi ne ñoom daal dañ am interest ci man muy dem euh, manager bi mu ne non waaye ñoo def mooy dinañ ko try naka lañ maa tryee mooy dama play bi 1901 against Real de Banjul waaye xam nga jamono jooju. kenn amul woon football. Mm-hmm. waaye nit ñi itam dañ foogoon ne football ñi ko def yëpp drop out sañ. Mm-hmm. noonu lañ jàppee woon football ci jamono juróom. Mm-hmm. waaye football tey gannaaw yàlla ak yonente waa Tijaan su ma dem Europe moo tax football yi Gambia ceeñ moo tax nit ñi xam loolu. que bi ma demee ok li ma jotoon am yëpp teral naa ci suma waajur bi. nga defal say waajur. dara di ko wax amul benn njëriñ waaye it pour ma gën a wax li tax xale yi gën a góorgóorlu li ma amoon yëpp ma fayal leen ñoom ñu dem maaka parce que aw ma lu ma leen fayal loolu rek laa mun ci ñoom den ñaanal ma yow yëpp biñ demee maaka biñ play ba pare gars yi ne foog ñu try ma against real man fii lañ ma tryee biir Banjul fii lañ ma trahé ute naa ñiy dem ñu cegle na yooyu man biir Banjul lañ ma trahé ma play bi 1901 against Real de Banjul ma score Real four goals benn goal bi ref bi disalaaw ko ndem si yàlla si alaaji mbuub moom it yal na ko yàlla yére moo doon ref li four goal bi daf ko disalaaw te boobu mooy goal bi gën a genuine ci goal ci ma score waaye because of maaj baa ngi doon am tension ci la fis ko jógee ci pavillon bi ñëw ne ñu génnee ma biñ ma génnee nag dëgga dëgga I felt it jooy naa jooy naa because of nit ñi xamuñ woon lan moo doon motif bi tax tubaab yi jël ma may play against yàlla dafa am ñoo xam ne dañ jëloon loolu sax dem ba ci suma ne ko yaa ngeen nangu euh, alaajee ngeen play tubaab yi against real xam nga benn because mentalité biñ amoon ci jamono jooju xamuñ woon lan la man maa ngi woon on a trial maa ngi on a trial boo xam ne gars yi dañ maa jël jël si dañ ma doon try ndax dinaa mun a maaj seen tiim bi su ma demee Denmark loolu lañ doon try fii waaye yàlla it mi dara teewul yàlla mi dara teewul ma def wel foofu so bañ demee teguñ ci two three weeks gars yi prépare suma lu nekk ma dem dem Eh, dégg naa ñu la ooyee biiri biiri lu tax ñu la ooyee tur boobu noonu di biiri biiri. <laughs> yaa ma laaj bu ñànga. waaw ko dee nangoo waxee waaye nag. <laughs> biiri biiri bi sax. Hmm. bu biiri biiri bi de. benn bi ñu ma ko tuddee fii suñu sëriñ daara waxoon naa la ko. Mhm. fii lañ ko benn bi Dakar lañ ma ko tuddee de. di seen biir biir di seen biir mhm. xam nga da euh, bu njëkk ba booba télévision amul. Mhm. radio bi lañ daan def commentary. soo biñ demee play ji against Sénégal. so that was in 65 festival mondial. ñu dem play ji dañu invité woon pour ñu dem play foofu ñu dem play bi ñoo laajte xam nga dañoo laajte turi play at yi force 11 bi. Yuval Geffer be pare centerfold bi ñu ne biiri lay Aliou alu, Alassane Ndiaye Aliou moom it beneen commentateur la moom so moom it mu ñëw ne waaw yow nag naka nga tudd ma ne ko biiri mu def beneen biiri bi noonu la biiri biiri bi ñëwee ñoom nag ñuy ko pronoun ci commentary bi biiri biiri so loolu indi biiri biiri bi. waaye bi lu miin. biiri biiri bi mi mooy li ma la waaye biiri la woon benn biiri. Ah. moom moom mu ngi miinoon dégg boppa bi ma la waxoon. ak ah. sëriñ bi moo ma tuddee biiri biiri. beneen biiri bi bi ñoo joxee neem si players yi Gambian si ci la fekk bind na biiri mu ñëw ma ne biiri mu bindaat biiri. mu nekk ñaari mu nekk ñaari biiri noonu lañ. mun na gaa yi continuer biiri biiri boobu ba biiri biiri boobu law sax biiri biiri bi li ca Sénégal respect ma te waxuma ne man kenn lañ respect ci footballeur si Gambia au sportsman yi Gambia yi de ñamal maa Seex Fay mm-hmm. ñun la Sénégal ndem see yàlla booy loo def baax na Lamine Owens la mm-hmm. waaye gi ñun ñoo Sénégal maaj boobu seven nit ñoom laa kataa ak góorkipa bi Masco <laughs> ci la ma tuddee biiri biiri Pele Gambien hmm. moom lañ maa ooyee léegi waaw biiri biiri paasal bool bi mooy yow kenn moomuloo ko noonu lañ ma tuddee léegi waaw <laughs> keroog three goals laa score Sénégal stade Demba Diop euh, stade Iba Mar hmm. dañ after match bi sandal mor dañ ma ñëw wóor di ma garder pour bu ma gaa yi gaañ loolu dem tey sénégalais yi soo demee Sénégal suñu équipe ñëw nañ la ki ñu laa njëkkaa laaj mooy biiri biiri mhm. ma naka seen gra bu munoon a football boobu biiri biiri naka la waaye coow rek la daan def ci train bi yow <laughs> waaw nga léegi léegi nga def coow mhm. coow li yëpp dangaa ut boo aw mhm. léegi-léegi nga dajee différence yu dëgër boppa waaye léegi-léegi yi nga ut pexe léegi-léegi nga jékki-jékki rek ne yow bu bu mag itam waaye yow danga mun da ngeen xuloo saagante yëpp leen daf dee am pour rek yow bunta booy rombee ngaa ut waaw muy dëgg yow ko nga waaye oncle Biri si biir programme yi lu mu fi def ñu dalal la yow lan nga fi def si biir réew mi wax ñu sa ay jaar-jaar ah lan nga fi def li ma ci def ci lan ban anam ngeen ko jël wàllum sport def naa fi lu réew de mm-hmm. lu mel naka eh, xam nga Espagne eh, benn laay door mm-hmm. football naa fa benn enuma nit ñi dañ ma enoo ci biir baye bi ba suma kër di ma wóoyaal di ma taccu di fecca play naa fii sénégal soone footballeur afrika man lañ la jëka tudda because amna luma fa def ñom suré Souleymane ñi nek na uh, one time african footballer of the year mm. suré Souleymane bu Guinée konakri. suñ ma gisé professeur lañ ñoom euh, ndem si yàlla si bokkande bu démba bi suma gisee gra gra yow kenn du mel ni yow nii ma ko waxee dafa am loo xam ne ñun duñ doo tiit duñ dee tiitaru liñ am looloo looloo ñu gëteen liñ am duñ ko dee tiitaru waaye billahi leena dinaa ko wax fu football yi Gambia dem dëkk bu mun a laan ci àddina si man lañ leen a njëkk a laaj boobu moom dinaa ko tiitaru du ma dee tudd waaye su wax jotee rek waxal te su ma football man dama ci war a tudd parce que li ma ci def kenn defagu ko li ma ci spend kenn spendagu ko ndax dinañ ko ñëw dee def ndax dinañ ko bugg doguma la te yenn bu la yàlla dog dama daan dégg mag ñi di daan wax ne ne dara daaxut fi nga jógee fi nga jógee neex na si biir programme yi lu fi def ñuy waxtaane doomi réew mu baax tey nag ñu tànn la si doomi réew mu baax am oncle Biri yow dem nga play all over fu mu nekk nii am sa tour fu nekk dégg neen ko hmm. am dégg naa am na ay waxtu yi nga xam ne sa dañ la bëggoon a jëna ah, maanaam eh, yeneen dëkk yi dañ bëggoon nga dem dëkk ji foofu noonu bés foofu ñu fay la ak yu mel noonu waaye ba léegi rek nga ne Gambia am loo wax nga ne there is no place like lu taxoon loolu. li taxoon loolu. jamono jooju. yaa ngi gis players si ñoo pele for example jamono seen jamono. ku ñu waxee rek ñu peleen fa xam nga du ma war a jógee fii nag dem maa ngi dem beneen dëkka di naturalize di nekk euh, euh, nationalité dëkka boobu suma suma deret sax daf maa pour su ma demee pour wax ne damaa jël suma nationalité li tax mooy Gambia suma pas suma yaay fii lañ juddoo ma juddoo fi am fi ay raka ay mag tanta maam maat maam ñëpp nekka fii ma war a jóg man kenn ma ne maa dem ne maa ngaa nekki beneen eh, dëkk yu jàmbur boo xam ne kenn xamuma fa because of li maa def moom lay leen kontaanee fi ma ko dooree nag foofu laa war a gën a respect than any other country amul benn country boo xam ne teg naa ko ci biir kaw Gambia amul ci àddina si te bu eva am bépp maa uyu ji suñu borom bi yal na yéex waaye gi nga last time bi waxtaan maa ngi waxtaan ma ne ko presse yi xam ma ja xale yi play démba démba rek am one million mm-hmm. waaw ñu ngi ci nekkoon ba léegi mm-hmm. presque gestu ko ne ma mu ree gaaw a jublu <laughs> da <laughs> euh, ñëpp nekk foofu ñëpp doon ree. Ah. including him ah. eh, xam nga loolu rek lu kontaante bi ma ci am because of borom réew mi. Mm-hmm. tey su for example su ma jógoon ne élève public holiday la. donc Biri bu la state bi joxee nga nekk deputy mayor um, naka nga fiiloon. very proud. am na newspaper bu fi njëkkoon a nekk foo na ay Liberian la au Sierra Leonean ngi daan def interview fekk ndeysaan youth and sports. Hmm. maa njëkk a sports coach yi of youth sports. Hmm. gannaaw yàlla. Hmm. ak yónnante ba seeti yàlla. Mamata, President Jawara, create this Ministry of Youth and Sports. ba pare ñi ko koo jox leen buuba balde mu njëkkaa nekk ministre of youth and sports naka nga taxewoon yaa ngi door a question bu baax dañ dem political bureau ñu dem saadaaw daa ngi fa woon ministre si ngi fóol ci poste Eh, eh, silsilaatoo ku nekkaa ngay wax xama politique ak yi yooyu ñëpp wax nga ne par rek bi gars yi jëlee nag saa daaw na ci boppam président mu ne ma ñëpp wax nañ de waaye daal dégguma suma waa ji wax de ku nekk ne ko xam mu ne biiri ñëpp wax moom waxul waaw biiri yow nag looy wax ma ko saa mu ne ma ne ko man di leen rek la man am nga yëfi politique mënuma ko waaye benn affaire rek laa ñëwal mooy suñ sports bi ñu boole booba éducation youth sports and culture la woon mhm. so ma ne ko ñu attaque ñu ak euh, éducation ay yëpp sports du euh, dem bu baax dañ bugg a suñ ministre nga xam ne ministre of sports laa nekk pour deal ak sports rek moom lañ buga mu ne yow loolu rek la fi ma ne ko lii rek ma fi indi pour euh, euh, pour suñu sport dem kanam ma ne ko lii rek moo ma indi fii man mu ne ok ndeke lim noo daan def na ko after election si bi ñu ne mu créer this minister of euh, youth and sports first year bi ci la Buba lépp Buba Baldé nekkoon ministre moom moo encourage man pa mamadi sou onkou babou sou nin about ten ol players yon ki futbol yon yon yon sèra leyon zon 2 yon yon yon yon man eko chila ministry bi soso onkou bi man eko fosport skoji ministry bi. maa amee woon ba pare ñu attaaj ma ci school si. ñoom stadiane booy su bari ñoom jato ñi ñëpp maa leen discover ci school si. Eh, yóbbu leen ci walidaan because uh, ma walidaan laa nekkoon. <laughs> waaw. oncle uh-huh. Biri uh-huh. lan nga def si sa jamono bi nga xam ne yow yaay woon deputy mayor Banjul ak kan moo la faloon. li ma def. Uh, as député maire. xanaa kañ. Euh, yokkute. yokkute yëpp ci jamono jooju dem naa ci maaka yokkute la préparé yokkute bi ma amoon dem naa World Conference of Mayors attend naa ko def naa speech ci World Conference of Mayors man ma euh, Moustapha Bathily ñoo àndoon as de. CEO ci suñu in Nigeria eh, Abuja mm-hmm. waaw maa doon represent mayor bi den moom dafa travel woon mu ne ma represent ko in Abuja mm-hmm. I went with Mustafa uh, um, Bachili to Nigeria mm-hmm. in Abuja well ah gars yi oo ma pour ma wax wax naa fa nag eh, <laughs> Bacili was very happy bi ma bi ma waxee parce que definitely bindaloon na ma speech. bi ma war a lii. waaye uh, speech bi itam uh, jàng naa ci tuuti waaye itam afterward mu mel ni yàlla def ma may xam-xam rek. nga dem ak moom baa uh, spoke a lot. ñoo la faloon nga nekk seen deputy mayor oo naka déedéet bi ma nekk député mayor président Jammeh. Mm-hmm. sa liggéey bu rafet la gisoo. waaw président Jammeh moo ma jëlee ci mbedd mi. on est Friday. Mm-hmm. ñu ooma Saturday. Mm-hmm. appointment lundi ma dem BCC. ñaata yee sa staff BCC. bi yaaya. 94 90. ba. last election bi eh, bi laay ba bi ñu laay ba bi nii noonu ah. eh, ci laa retire ah, waaye fekk na it bindoon naa before waaw parce que xam nga itam léegi-léegi ci yenn liggéeyukaay yi jiite naa marché yëpp ci ma tenco bi ma nekkee BCC mhm. nekk naa director of cleansing service mhm. ba pare nekk naa euh, market manager for many years. Mm-hmm. di nga gis ne xeet naa section yi BCC yëpp. Mm-hmm. même des finance. Mm-hmm. nekk naa fi deputy mayor. nekk naa fi acting mayor bi Samba Fall demee nekk minister. man maa doon act as mayor of Banjul. ma euh, maa jox caabi ji Pasala bi mu ne atam. élection maa ko jox. ñu yee ma yóbbu ma ne ma ñu jël ma def ma director of cleansing service. Mm-hmm. boobu it yàlla may ma fandam mm-hmm. jógee ma jógee ñu yóbbu ma bi marché xawee am problème ñu jëlee ma foofu yóbbuwaat ma marché. waxuma ne damaa xijaan. Mm-hmm. waaye problème bu amaan BCC o fu ñu amoon problème. Samba Faram fi de doy doy ma seet ne fu ñu amaan problème fa ma man fa lañ maa yóbbu pour ma régler ko. Mm-hmm. te yàlla def ma daan dimbale lii liñ namoon ci man ba def ko yàlla daf ma ci daan dimbale dam ci daan am succès. all right oncle Biri. lan nga ñu mën a fàttale ko si li nga xam ne fàttali nañ ko si biiri. ah bari na de. Mm. parce que du ma leen mun a wax yow am na yoon yoo xam ne dama ko toog parce que ci rajo laa waxee te jëfandikoo dégg ah. nga xam nga biiri rek. turi boppam la waaye itam jalooreem ak. di jaar mosal ñu tuuti on eh, ah? mosal ñu tuuti. suñ daan sàcc pataat for exemple. <laughs> Eh, time yi gàmmu. <laughs> boobu am na bés bu serious laay wax bi. Hmm. dañ wàcca jógee eh, gàmmu that was about 2 am. Hmm. ñu uti pataat. Hmm. waaye ñu jaala dem ci tan bi. xam nga booba time tan bi dafa wow waaye di nga gis ne euh, gars yi bambara yi dañoo ji ay pataat ji mbooxa yi yooyu yëpp ñu jaala pax mu mi dem ngi am Lion ak Tiger seen yenn ko ñu tuddee ko Tiger yooyu saaca bee ñëw saaca ban sukkur yi we bay war a génn si moto police yi de diree ci la ñu dugaat ci moto ñu dawaa dugal ci biir àll bi ci tan bi xam nga fan lañ fële Malfa School <laughs> ci guddi googu ñu ngi vérifié suñ mbooxa yi ñu sax ñu tuur la ci yoon bi waaye fi mu nekk ñu ngi bëgg a survive pour ñu daw ñu daw aw génna taalal Cotting Street. ñëw euh, ci ferry bi noonu. mais li gën a foni dafa mel ni da euh, dañu toppa bi ñu gisee euh, bi ñu ñëwee ba Fula Hills di ñëw towards Gamo gi rek police yi fulaat beneen mile ñoo waaye gis na dama daw a daw a daw ba mu moto baa maa jot si day mën a wéññeeku. Mhm. xam nga bala ñoo break ba police yi dina fekk man ma toll boobu maa ngi fit. loolu mhm. laa dawee rek ne dañ ñëw ut xaaral ma dem tëddi man loolu laa cultivé rek dem tëddi <laughs> ah, bi dañ jëmbee ko yow dafa fiiñ ci biir bi fiiñ ci biir ñoom <laughs> <laughs> jamono jooju neexoon na trop because am nga dañ daan axeeñu mhm. dari kama yi nekk ci yu su ko defee doo tooñee rek dari po maa foo dagee rek loolu mhm. rek ñu ritee yow maayal bi ne kuur so fàttali ko ñu tuuti rek si yan football am teams nga play woon comme ñoom Walidaan ak ñanaat ñoom Star maa ngi comme maa ngi dooree Black Star mhm. ca suba sa ñu ma play Black Diamonds ma jóg Black Diamonds play White Phantoms ma jógee White Phantoms Arans jox ma liggéey mooy liggéey bi ma na wax ne Marañ Faraadi ma play leen benn at ñaareeli at bi daal ma decide ne daal mënuma play ñoom bi ko dañ foogoon ne dama daan jaay géem suñ dajee Phantoms dañ daan ne dama ji dama dee jaay damaa soo ma decide ne daal dama bàyyi eh, doon noonu laa bàyyee dem Augustinians Augustinians nag yàgg naa fa toog mm. ba bi Wally daan di fomm man ci ñi original players yi Walidaa mi la li ko cause mooy Moses Trin Musa Trin su maaja real dafa dama ñu ko doon playal charity match pour yóbbu ko Angleterre so biñ demee Angleterre biñ ko fa play yooyu biñ play ba pare affaire yi xaalis daal interop ci yëf yi kenn xamul lanay lan gars yi decide nañ ne dañoo form Walidaan beneen team. Mhm. Walidaan bi ki ko fo ki ko tuddaal joxe tur mooy oncle Alaaji Baabu Sow mu ngi réer recently rek. Mhm. waaw yal na ko yàlla yëngu su ko jaay la. Mhm. moom moom moom euh, ñoom fisco yàlla si. ñoom sang oncle Sankare côté yu bëri ah, ma Aliou Dieng bu Dobsin ñoom ñëpp même oh bi 1901 bi ñëwee foofu lañ defee parti bi kër Alaaji Aliou Dieng boo fis ko ñu dëkk angul si mhm. di nga gis ne nopplee Augustina bi wàlli daan fome suma panangu doon ma dem ma mhm. dem wàlli daan non because of Augustina xam nga friends am yëpp te Augustinien nañ ko taamoon as tiimi gourmet. Hmm, waaye nag lu tiimi gourmet parce que euh, ok gourmet si officers yi yooyu yëpp la waaye players yi sëriñ yee ci ëppoon. so luñ ko daa noonu la waaye tiimi afda yi. waali daan moom la ñu tuddee ko tiimi afda yi soo mënee man duma play foofu. so dem bi ma amee chance bi pour dem England. bi ma ñëwee laa join waali daan in 71. ma ñibbisee ci laa doy walidaal ma play fa one year dem Denmark bi ah. ma ñibbisee nag finally suma contrat bi mu jeexee eighty ci la suma ci la eh, contrat bi jeexu doon sax because maa ngi sign on ba 83 mm-hmm. waaye because of suma elder brother ak suma younger brother ki ne maa ñoo maa nekk ci seen diggante ñoom ñaar 81 attended yi dafa am dañ amoon problème ñu di cee ñëw ñu rafetal lu nekk. waaw so maa ngi maa ngi leen a di leen sant lii moom lañ nit ci réew mi réew mi ñi di woon démba nañ leen fettali ñu ñi ñi xam leen waaye suñ leen xamee it nañ leen jox respect waaw waaye ma ñëw ñëw na ma biir kaama laatirku naa foo na ma ñëw gaa yi ne biiree nga kenn dafa jóg ñëw yow biiri loo fi def yow yaay kan ma ne man maay ki war a wax fii ci lii dex ni muy football bi man man mooy man mu ne ma musuloo dara waaye bul ñu géteen benn door di saaga ma ne ah lii xëy na danga ma amee ci xol waa ma gii na def parce que mënoon naa ko tontu waaye afterwards ma ne waaw kii di wax lii moo suma doom ñooy maase. so jarul ma tontu ko. am nga ay doom yu nekk si biir football waaw kenn kenn a ngi play football suma doomi jible bi tam mooy mooy Tidiane Jaite. Mm-hmm. suma doomi jible la ki toppa ci moom Yusufa moom right now nii mu ngi in Morocco. Mm-hmm. mu ngi play in first team bi ñëwoon fii atam play si against Real. Mm-hmm. moom moo ci laa play. Onku watan menih na toro buku menih na buku madam Nai taga gato Gambian talent listinas. Ah, dileg wawe ni te mongo na wa bye bye dileg nyanal di nyanal ñi nga xamne ño tok created li ci Gambia parce que Gambia lola lola lool la président bi buga nañ def lo xamne te fum joy ñep dinañ ko apprécier mm-hmm. waye suma defé lu baax nañ wax ne lu la def su ma defee lu bon ñu wax ne lu bon laa de mhm. waaye yow lu bon li ma biiri def rek ngaa wax mhm. yow li baax li biiri def bugguloo ci am dara non correct mhm. nañ leen nekk benn liggéey suñ réew réew mi ñoo ko moom kenn du ñu ko liggéeyal liggéeyal suñ boppa ñun nag li ñu waa yàlla meewoon li ñu yàlla séedoon man biiri njaay def naa ko ba mut sëg awma ci ñi ñi ngaara dama fil li lila wara def def na ko bem mu ma ngi Gambian ci ma support ñi ma supportu ñepp bala ma gërem bitim rew fi la ñika gërem di gërëmaata. ko no tuda ma ngi tuda balarambu ma ngi dika eh, ma dëkkoon Dabsin Street wala dika wala yaro mak be amee ba 10 ten years ago so si la gëna bañul dem dika suma suma kër ak suma famille alright um uncle mbow lan nga ñu mëna wax um, si goji nga xam ñu xamé ko ci biir ndjay wa waaw biiri li mëna ko mëna describe lé moy kenn la si gambien ci nga xamné yobu na turi gambia fu kowe ko wé amna ni ñu bari xam turi gambia su ñëwee si football diggante gambia ak sénégal amin biiri nekkoon na fi ko xam an outstanding um, figure la won loolu dañ daan wax time bu mu ne suñu nee Gambie rek dañoo wax biir yi so play na ci international bi ci teams yu mag yu bari one of them muy Seville one of the biggest clubs ci world bi Spain play na fa moo fa nekk fa naa ne foos nit ku ñuul ku def fa dem ku ku play football so uh, affaire biir yi nag moom nit mun na cee wax tey ba ëllëg ci li nga xam ne lu baax li mu def si dëkk bi ak am play na ba retire ba ñëwaat playaat bi mu ñëwaatee walidaan yóbbuwaat nag team bi ba maa ngi fàttaliku ne am na benn IA bu ñu playé fii Sénégal time boobu dañ naan play dis confédération cup mu dem play Dakar you know walidaan win fa euh, Jaraaf by two two goals to nil mais ñëpp di laajte ndax di seen biri biri bi doon play eh, ma te international mooy pays biri boobu bu fekkee na sax biri bi taay na bu yàgg si football ñëwaat fii tig up walidaan jël walidaan yóbbu ko to the highest heights you know I mean loolu uh, loolu loolu loolu comme ni ma la ko waxee rek mun nañoo wax lu bari ci moom loo xam ne I mean fii ba ëllëg suñ ko wax lu jeex waaye daal li ñu mën a wax mooy kenn la si doomi Gàmbi yi nga xam ne you know euh, dusaaf na lu nekk ci dëkk bi waaw yóbbu naa prix Gambia Um, so oncle yow lan nga foog ne oncle um, Biri def na ko loo xam ne lu unique woon la. wala li li mu defoon fii lu unique mooy comme wax naa la benn wax naa la um, moom carrière am assez assez professionnel footballeur you know I mean starté fii nga xam ne time boobu Gambia team bi bëriwut ñu bëriwut bëriwut amoon na ñu am jom ñu mun a play waaye ku mel ni moom dégg I mean bëriwutoon. da pare jëloon na su bëri fii yóbbu leen si bi time boobu noonu ñu noonu ñun nit ñi dañu wax su fekkee ne la woon ñu bii la biir yi juddu woon di koon at least dina dina nekk one of the one world's mun na koo nekk. waaw nit te mais yeneen nga xam ne ñu ngi ko am fi mu nekk nii time boobu talentam biir talent biir xëyut woon xëyut ci ñooñu fi mu nekk na time boobu nag moom um, football demeewul noonu Afrique noonu ba pare di route to to Europe wasn't like it is today loolu loolu la la moom daal anything unique moom laa carrière am yëpp dafa unique ci Gambie. waaw. Um, so oncle uh, xam ne dalal neen um, biiri biiri si biir Gambian Talents Radio mm-hmm. si suñ programme lu fi def uh, naka nga um, di joxan an account si biiri nga seede seede seede naa ko seede naa ko as uh, Gambian boo ne saf na dëkkaam ci ci international pare ñëw fii nekkoon na fi député maire def na so many good dégg nga ñëw na fii euh, aftalulu ñëw na fii amee mag di Banjul market which is the biggest market in the country di ko ron ñu moom su daal am comme ni ma la wax rek ñu know amin na uh, li ngeen ko dalale nii dafa wane ne yu bëree ngi fii yoo xam ne nit ñi xamuñ ko and des no there are lot of Gambians ñoo xam ne daf doon good and uh, benn tey ñu ngi nekk di ko def ñoo dañ dañ téye seen bopp Gambien ñu ngi xam def lu baax rek bi bii di ISU one of count as one of the good Gambians si nga xam ne digga digga ñoo ah, moo tax honor nañ ko bi this present government nañ ko biñ tegee over as you know one of the eh, I mean I eh, countries eh, best child best child am nga téye ko amin amin amin amin def ko joxe joxaat ko place am mm-hmm. so moom always façon boobu la war loolu la deserve dafa disave pour un Gambien ku ñëw di nga jox ko cër waaw cër bu mu am mooy cër bu wane kii amin doomi Gambie bu bu bu bu am njëriñ la ci dëkk waaw. sa final word. waaw mooy ma ma la you know amin lu mel nii it's very very good ne yow yow liñ la sa sa sa sa la jox yëpp donc ko disave man xamoo la waaye bi nga ñëwee ba approche ma wax ma ci li nga nekk nga dëgg yow da nga nar da nga da da nga da nga dañ la war a encourage so ma ngi kontaan ci loolu di la gërëm ba pare you know di gërëm ñaanal seen rajo bi seen programme bi mu dem ba sa kaw mu dem I eh, mean to high heights waaw ba eh, I mean àdduna si yëpp xam ko ba ba leneen leen juddu si. amiin parce que Seydina Mohamed. amiin jërëjëf like never before. Oh, yes. Advertise with us and let your client grow like never before. Yeah. You're listening to us 24 hours a day on www.gambiantalents.com. or through your mobile device, through tuning. Gambian Talents, where talent meets creativity. We are here for the Gambia, homeland. Y'all want me to do a song for your kids? Yes, i Alright, alright, let's go. I listen to Daddy Times radio show. School is over. Go home, do your work. Yeah. Gambian talent promoting Gambian Promotion, promotion And the business advertisement See sports, also entertainment, business, culture and social Education, health and kid activities Any talent them have, them a bust it to the world Gambian talent promotion Any talent them have, them a bust it to the world Gambian talent promotion Any talent them have, them a bust it to the world Oh yeah, Gambian talent promotion Any talent them have, them a bust it to the world Oh yeah, Gambian talent promotion Any talent them have, them a bust it to the world Gambian talent promotion promotions. Eh, got me and them promotions. They see me can be promotions. Any fella them I have them I bust it to the world. To the world, to the world, to the oh, world. Ah, ah. Any fella them I have them I bust it to the world. Got me and them promotions. Any fella them I have them I bust it to the world. www.gambiantimes.com Then bust me tunes to the world. Speedy General. Respect.